que ba va envisager. Pastef. Hmm. seetlu aussi benn euh, singale. Hmm. bu jóg ci ñoom gis nga arrestation yi la dernière mooy bu Bassirou Diomaye fay hmm. pression boobu ñu teg ci parti Pastef. boobu tamit euh, nan nga ko gisee parce que tamit euh, ku ne Pastef ne Ousmane Sonko en tout cas son entourage ñi bracelet électronique nañ leen. Hmm. ñi contrôle judiciaire ñi ñu ngi ndungu sin nag ñi demee noonu c'est une stratégie pour l'isoler ou wala lan la exactement wala dafa am lu ñuy préparer. non man xam nga da nga wax bracelet électronique. Mhm. te bracelet électronique source yi ma am xalaatu Bassirou Diomaye Faye la. ok léegi nag est-ce que du. gars yi loolu lañ ko meree parce que xam nga bracelet électronique non franchement cest est est c' est est maanaam passif niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko tourné euh, maanaam niñ ko banaliser noonu ci politique ah moi je pense que c' est un coup bu ñu réussir xam nga lu tax. Pastef réussir. ok pas le fait que ñu dem ci yoon ñu takkal leen ko noonu non loolu moom kenn souhaité wu ko woon quoi mais xam nga phase test bi bracelet électronique bi. Mhm. y' a mille. mille autres sont euh, sont sont sont sont, sont commandés quoi. Mhm. normalement d' après mes mes informations xam nga bracelet électronique ci wàllu yoon li ko tax a jóg mooy wàññi le peuple carcéral ñu nit ñi di engorgé woo ci. kaso yi et cetera et cetera te bracelet électronique vraiment c'est stigmatisant quoi nga takk ko ñëpp di la xool et cetera léegi nag Pastef dafa dem ba moom léegi comme ni mu ko waxee quoi c'est le bracelet de la souveraineté et cetera et cetera léegi moom ni ko ni ko ni ko banaliser sa sa sa ça ça donne même euh, par exemple dafay nekk benn genre defi pour les patriotes. de telle sorte ko pour ñu considérer sax véritablement comme un patriote da nga war a takk bracelet électronique ñoom ñoom waa Pastef dañ ko banaliser parce que mille francs lañ koy jaaye ci lu doon jar 200 francs mais engagement wu par exemple un jeune patriote dina ko jaral moom. mu dem jënd bracelet bi waxuma mu def loo xamante ne bii day tax ñu takkal ko ko de. mooy bracelet bu waa Pastef di jaay. voilà outil bracelet électronique. voilà ñu leen di gàll ci tànk. est-ce que tu as compris mhm. cest dire euh, ni ma ko mën a expliquer mooy le fait que par exemple Pastef créé ñoom seen i bracelet bopp di ko jaay c'est un bracelet pour ñoom lecture ma ci am de l'engagement politique c'est un bracelet au lieu par exemple qui stigmatise mais aussi tamit. ki qui, qui, qui, qui, euh, qui unifie, qui renforce l'engagement. Euh, qui euh, c'est le bracelet même en fait de l'identification voilà par exemple boo ko takkee ak Pastef ñëpp dañuy xamante ne yow ci Ousmane Sonko nga bokk léegi nag ñi ko amul daf leen di jaral sax ñoom ñu dem jënd ko waxuma ñu def loo xamante ne day tax ñu takkal leen ko encore une fois ñu dem jëndi ko pour leur permettre comme ils sont dans une communauté politique de s'identifier donc du bracelet par exemple de de de de par exemple euh, judiciaire on est dans le cadre de bracelet euh, de l'identification du bracelet de l'engagement yaa ngi dégg du bracelet euh, même euh, comment dirais-je encore je n'ose pas dire de la citoyenneté mais par exemple du du du du patriote politique et cetera et donc léegi nag. man dama ne comme man gëm naa ni Basiiru moom il est le maître d'ouvrage par exemple de cette trouvaille là xalaat boobu xalaatam la est-ce que du gars yi loolu lañ ko meree di xaar nag mu def ñoom lu ñu jàpp ne lii waru koo def ñu téye ko parce que quand même c'est une c'est une c'est une c'est trouvaille le fait moom parce que aussi tamit politique da ngay fexe ba yow luñ la teg. nga jàpp ne lii teguwul rek nga indi ay subterfuge indi beneen beneen beneen beneen pexe boo xamante ne yow da nga ciy génn xam nga ñoom par exemple bi ñuy jàpp El Malick wala bi ñu koy wooru takkal ko bracelet électronique kenn foogul woon ni Pastef aussi tamit am nañ laboratoire bi leen permettre ñoom ñuy xalaat ni par exemple bracelet électronique bi nga xamante ne bi dañu commencé dañu ko takkal ça va nous stigmatiser par rapport à la société nan la ñuy def par exemple euh, def ko mu nekk atu parce que faiblesse la woon léegi ils en ont fait un nag loolu ba lecture la ci état bi jàng du leen neex ñoom aussi du leen neex. rupture de stock et tout. am est-ce que est-ce que wax dëgg neex yàlla. mais hmm? kan lañ ko fi takal dafa mel ni el euh, kii Boña lañ ko fi njëkk takal après El Malick. bracelet plastique yi la wax. en ah, plastique yi ah du taxaw. <laughs> du loolu mooy li ma la wax. c'est un signe quand même. non cest à xoolal gis nga ñoom seen bracelet bi. Hmm. c'est l'identification c'est l'appartenance waaw kay moo boobu laa doon seet l'appartenance aujourd'hui ku ko takk danañ xam ne yow tu es de Pastef mhm. c'est l'identification tu t'identifies tu t'appartiens yaa ngi dégg ba pare en fait euh, voilà quoi dafay nekk loo xamante ne ñi ñoom ñoom euh, daf leen di neex quoi daf leen di neex la fait que ñoom ñu takk seen i bracelet su ko defee yow par exemple ki ñu ko takkaloon nga xamante ne moom il va se sentir vraiment stigmatisé au contraire dañ koy ramané waat dans la communauté pour wan ko ni yow ba euh, liñ la takkal nii nekkul lu dis quoi lu ñuy woyofal la donc ñoom affaire bi ni mu nekkoon benn genre poids benn genre fardeau benn genre joug ci ki nga xamante ne bii moom lañ ko takkaloon fële de l'autre côté bu gisee ay moroomam takk ko yaa ngi dégg même si fee yi du benn bon poids boobu dafay allégé donc ñoom bracelet Pastef yi man ni ma ko jàppee ci ñoom ñi bokk Pastef ça allège par exemple ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ko takkal da nga ci day ci dem ba nga xamante ne sax yow pour pour nga jàppee sa bopp Pastef da lay jar yow nga dem jënd bracelet yi pour ñu jàppee la aussi tamit Pastef yaa ngi dégg da ngay dem nga jënd bracelet yi c'est comme par exemple loolu loolu des fundraising voilà yëkkati euh, xaalis pour dem campagne récemment ou bien par exemple pour les activités politiques récemment ils avaient soulevé ou bien ils avaient levé autant pour moi plus de 300 millions millions 333 millions et quelques donc foofu nga koy dugal ci cadre boobu donc moi je pense que parce que c'est un parti boo xamante ne bii quoi qu'on puisse dire ils ont des laboratoires des personnes qui ont qui ont des idées et que face à n'importe quelle situation bon mën nañ ko tourner à leur faveur et que loolu aussi tamit bon état bi loolu ñoom du leen neex loolu la taxaw seetlu des ci passif de silence bi nga hmm. xam ne ni c'est inhabituel de Ousmane Sonko mi nga xam ne ni depuis quelque temps gisuñu ko mu def live gisuñu ko mu def déclaration